salaam def waa kër gi maa ngi leen di ku nekk sa tur ak sa sant man nag dama dugg ci YouTube bi di seetaan parce que théâtre bi chaque jour man dama koy suivre waaye tey dama ñëw léegi nii di seetaan thème bii nii ngeen dugal nii thème bi tamit dafa doon loo xamante ne bu garaaw la daal bu danger parce que góor boo demee ba mën a takk jabar war nga koo mën a yor waaye yow sa jabar doo ko defal dara te mayoo ko jaamu te respecté woo ko du yoon ndax jigéen amul dara lu sagu ak néegu sëyam jigéen am na noo war a mën a mel moom sax mu sutural la te kenn du la xamal dara yow sa jabar bu demee ba nga xamante ne ne mu ngi jaay ngoram dem di liggéey di daane dooleem yow ku góor gi defaloo ko waxoo ko ba muy jaay ngoram dem di liggéey di daan dooleem di ñëw bu amee ab mille franc am mu joxe ko dépense ndax yow nga lekk yow xooloo na mu ngi lekk xooloo mu ngi naan xooloo mu ngi feebar xooloo ndax mu ngi solu xooloo dara te teewul yow dalay jox nga lekk yow ku góor ki li nga ko war a defal moom moo la koy defal te yow ko jaamu respecté woo ko joxoo ko cër loolu ànduma ci loolu ba tamit en plus maa ngi tamit condamné tamit sama moroomu jigéen ñi tamit yow nga mu leer na ne yow kii dafa am jabar nekk ak jabaram ci biir kër gi yow mu lay nangu yow nga indi la indi ci biir kër gi di nekk ak yow ci biir kër gi di fa romb ab jabaram di romb jabaram di dugg ak yow ci biir néeg di sekk ak yow yenn yi yow nga koy nangu na la leer na ne ëllëg ba su la takkee tamit bu la ko defee bu ko métti lu yaa ko ko may parce que li nga li nga dund ak kële lu mu dund ak kële lay dund ak yow ëllëg waaye xale bu jigéen bi tamit li ko dal tamit métti na trop trop trop trop trop trop trop man neexuma man jigéen laa man su ma gisee jigéen góor di toroxal jigéen rek man daf may naqari. affaire bi nag su ma nee naqariwu ma nag damay fen waxuma lu am naqari na ma trop ba ci kanamu yàlla waaye nag am na góor ñoo xamante ne nag góor ñu baax lañ dañoo respecté seen jabar jox ko cër jox leen cër waaye am na góor ñoo xamante ne jarul sax may soxna ba di leen téye barki sëriñ saaliw waaye nag na muñ ret lu tëwa lu tëwa xam yàggut na ko bàyyi ak yàlla mu muñ sëy benn sëy neexut waaye nag am na foo xamante ne boo fa toll mënatoo muñ fan dem rek ngay gis comme ni jàllikat yi dund man théâtre bi chaque jour dama koy suivre musuma benn saison musuma cee raw dama koy suivre te man en plus tamit jàllika tamit dama koo bëgg parce que da cee am fula am ci caractère ba ci da ce am fula sax ci kanamu papaam. parce que li di dund jëkkër ji di dund moom la papa ji di dund waaye papa ji lu bon bon sax mu ngi koy nëbb yaay ji te mu ngi xaw ma mu ngi dundal yaay wala dundalu ko waaye jëkkëru jalika bi moom kooku moom góor góor gu baax du roy ci moom ndax nekkul góor gu baax vraiment nag maa ngi jéggalu bu fekkee ne kàddu yi ma ci wax nii tamit am na yoo xamante ne jaaduwul yéen ñi koy déglu yéen ñoom tamit maa ngi ciy jéggalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax seen thème bi tamit neex na ma nag trop trop trop trop